hôpital information bi Balla Gaye numéro 2 kañ la ko yëg ak bi mu ko yëgee lan moo nekkoon réaction waaw jàmm ak salaam rek parce que tey man sumay may kilifa sax ñëw ku asi moom ne woo na euh, ñaa ngi bind ci internet bi ne da feebar euh, donc il faut nga démentir donc waxtaanal say supporter waxtaan ñi nga am say am di jàmmal ak say mbokk dala seen xel ne wax dëgg yàlla maa ngi ci jàmm maa ngi ci salaam vraiment sant na yàlla suñu borom waaw maa ngi nii on est là. kon yow maanaam Aziz Ndiaye bi mu wax loolu loolu moo tax nga yokk mais gisoo ko fenn kenn woowu la woon. non gis naa ko gis naa ko ci internet bi gis naa ko ci internet bi aussi gis naa ko samay téléphone non <laughs> waaw mais comprendre moon ne affaire bi noonu lay demee quoi dinaa ko comprendre sax du ma ko bañ comprendre parce que bon kon boo nee Balla moom donc boo nee benn affaire rek donc Sénégal yëpp nañ ci prêter attention mais nag aussi tamit sant yàlla la rek mm-hmm. donc ci lañ waxee nag donc ma démentir. dalal samay xelu supporter ak sumay am di jàmm ak ñi nga xam ne samay soppe lañ mm-hmm. ak ñi ma bëgg ak samay mbokk mm-hmm. donc voilà loolu la. yow genre information noonu lan moo koy waral pour yow bi nga maanaam ban jàngat nga ci def après. waaw man xam ma ba ma dalee nekk ci làmb tamit yàgg na. Mm-hmm. ba ma dalee nekk aussi tamit ci milieu bi yàgg na. bon mis naa yenn yi wax yi ak waxal nit loo xamante ne gisoo ko tegoo ci sa bët laajte woo ko mu wax la ko yooyu mis naa ko. donc juste rek kon ñu ñëpp ay doomu aadama lañ war na aussi tamit lépp looy wax wala nga koy génnee jaadu na aussi tamit nga nga xam ko daal loolu kese laa ci wax. ndax bala Gaye numéro de day topp loolu wala fàtte na ko wala staff bi staff bi ñooy décider lu ñu ciy def. non mënuma topp kenn ndax eh, awma jot sax naa di topp kenn waaye amaana rek mooy que lépp importance rek. mooy nga xam ne lépp looy wax rek nga bàyyi ci xel bu baax ne xam ne kooku dafa am njaboot am ay mbokk am ay njaboot yoo xamante ne vraiment mu déggee ci loo xamante ne waruñu ko dégg ci ñoom da leen di wala am di jàmmam juste rek képp kuy bindi wala ngay yooyu da koy nga xoolaat ko rek. Mm-hmm. information famille bi nan lañ ko nan lañ ko dundee ak yow nii. waaw jàmm ak salaam parce que xam na ñu ngi nekk ak man. donc voilà loolu la rek mbokk yi nga xamante ne. xarit yi la gisul nag. waaw dañoo bon. waaw peut nag avant combat ba léegi nag gisuñu ma peut-être ci wàllu liggéey bi ma nekkoon mm-hmm. biisi naa nag wax dëgg yàlla gën nañ ma gis yenn yi wala ñu gis ma ci xamante ne wala nit romb ba gis ma daal mm-hmm. xëy na moo tax ñu ñu ñu mu demee noonu mais maa ngi ci jàmm. Mm-hmm. macha allah yàlla na sax mais bi ñu dàqee sa combat ak léegi gisuñ kenn gisatu la comme ni nga ko waxee kenn gisatu la kenn déggatu la fenn ku la bëgg gis ne la ne la ko ci statut te doo statut sa bopp <laughs> nëbbatu bi lan moo ko waral. boobaag léegi. waaw non xam nga dama nekk ci liggéey bi nga xamante ne wax dëgg yàlla na damay liggéey la boo xamante ne boo am importance sama carrière rawatina samay supporter ak sumay encadrement ak suñuy saf ñu sumb loo xamante ne aussi tamit euh, ful la ak fayda ak jëfandikal bàyyi tere respecté sa liggéey fonk sa liggéey mi fiiwu ci bëri donc ci moment boobu laa nekk moo tax lu bëri. du question damay làqatu doomu adama yi wala damay daw doomu aadama yi liggéey bi ma nekk laa respecté te dama ci ñaan yàlla génn ci ak jàmm sumb naa loo xamante ne aussi te mbër mus ko sumb maa ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla jëlee ma ci maam ci ndam bu kawe suma njot te incha allah nañ ko ci am. waaw sérieux toog lolu liggéey respecté say entraînement respecté say saf respecté say mbokk. respecté ñi nga xamante ne ñëpp ñu ñu ànd ak yow di liggéey donc liggéey boobu nekkul liggéey boo xamante wax dëgg yàlla liggéey caaxaan la ba fu ñu leen naam daraame rek nga ne fa waaw. <laughs> ñu dàqee sa combat bi ñaata jour nga noppalu reprendre say entraînement. waaw noppalu naa nag noppalu naa pendant une semaine nag après incha allah nekkaat sama entraînement. Mm-hmm. une waaw. nga noppalu ko génn ma sax nag lekk naan tëdd rek. ba mu jeexee nag après incha allah ci laa ci laa doog a reprendre sama entraînement. Mm-hmm. jàpp nañ combat bi le 28 novembre maanaam mën nañ ñetti weer moo des ci combat bi ndax Balla nañ xaar mu voyage waat dem France UNICEF bi nga xamante fa nga doon waajale wala da ngay toog fii toog ci 3 mois waajal sa diggante ak Bombardier. waaw lu lomb combat bi laaj rek ko def parce que comme bu fekkee da nga yor ay saf yor ay encadrement yi nga xamante ne vraiment ñu xarañ nañ ci wàllum làmb mm-hmm. donc ñu na defee nii ak waxal nii. donc sans départ ci li nga xamante ne Aziz wax ko rek ñu war dem defi dañ koy def bu laajee tukki ñu tukki bu laajee toog fii aussi liggéey ñu toog fii liggéey. Hmm. ànd est-ce que Balla Gaye numéro 2 du gën a sentir boppam suy waajal combat bu am importance ci fële nga xamante ne moom mooy France que Sénégal maanaam gis nañ ni sa combat capital yëpp même bu dul France da nga doon dem voyager hmm. est-ce que Balla Gaye numéro 2 mënuñu xaar wala mënul wax ay ay ay ay fan sam li balaa yàgg dara dina dem France wala fii ngay toog rek wala ngay nëbbatu rek. non non nëbbatuwuma c'est-à-dire que xam nga mooy li ma la xam nga bu fekkee ne aussi da nga nekk ci ay loxo loxo yi nga xamante ne aussi tamit vraiment euh, yaa moom sa bopp yaa moom sa lépp aussi mais bu fekkee da nga ginnaaw yàlla ak yonent bi yàlla am ñum la booleel ñu topp sa ginnaaw nekk ak yow donc li ci mën a xew aussi tamit da ngay méfier wu ci lu bëri mënoo joxe bopp roo ci làmmiñ lépp luñ ci décidé ñoom dañ ma koy woo wax ma ko ne ma lii ak lii ak lii la ñuy def lii lii ak lii la ñuy wax donc ñoom luñ ma ci wax rek incha allah damay pare pour dem bu soobee yàlla. am nga gan kan kooku sama lépp la. kooku ñëw na de. waaw allah. dafa dafa dégg feebar moo tax mu seet si. non liir <laughs> yi sama waay démb rek gisee ah. ñu ngi jokkoo gisee nañ waaw ah, moom moo dëgg yàlla sama mag la moom dëgg yàlla nit la boo xamante ne li muy faral di wax rek àdduna mu solo te <clears throat> xale day topp ci mag mag topp ci ci ci ci xale waaw mag yërëm xale donc àdduna bi daal loolu moo fi nekk maa ngi koy conseillé bépp lutteur bi nga xamante ne rek moo ngi ci écurie yi wala mu ngi ci école de lutte xale day topp ci mag bu bëggee dara walla bu bëgg tey booy sàkku dara na ñëpp respectante rek joxante cër ku la jo mat mag aussi nga xam ne vraiment kii sa mag la nga jox ko lim moom mm-hmm. bu dee xale bi aussi tamit ñu respecté xale bi jox ko lim moom mm-hmm. teg ko ci yoon tette ko ëllëg mu mun a raw ay maasam wala mu toll ci ay maasam fu mu toll maa ngi koy conseil bépp leader bi nga xamante ne nag vraiment wax ji bëri na coow li bëri na waaye ku am nag sa kër bàyyi nga ko yeew mm-hmm. na nit ñi fas jom respecté seen liggéey fonk seen liggéey respecté doomu aadama yi nga xamante ne ñoom la ñuy waxal respecté seen mag yi nga xamante ne ñoo nekk ci làmb. loolu parenthèse la sax Balla Gaye parce que comme ni nga ko waxee coow li bari na ci temps yi nag mbëri ndaw yi mere nañ leen trop ku wax ni VIP yi VIP yi VIP yi dafa mel ni da ngeen a seetaan mbëri ndaw yi de bañ mere leen. non seetaanuñu kenn ah mbëri ndaw yi xam nga Lamine. làmb da nga ne da naan école de lutte Balla Gaye. Mhm. écurie Mor Fadam. Mhm. ne Fass. Mhm. ne est-ce que ñoo bokk <laughs> duñu benn kenn ku nekk yaa am sa choix nga dem fa nekk ci écurie boobu parce que écurie boobu moo la doy mais ba nga fay dem fekk fa fekk nga fa ay nit ñoo xamante ne ñoo gérer seen école ba tool fu mu war a toll yow nga ñëw bëgg dara kon ñooñu boo fa demee bëgg dara nag da ngay jëfe ndigal bàyyi tere bu dee yow mënoo ne yow da nga bëgg doon champion mënoo def sa bopp champion Balla Gaye dee deful boppam champion Eumeu Sène deful boppam champion Gris Bordeaux deful boppam champion Bombardier deful boppam champion Modou Lô deful boppam champion parce que dafa am ay ay kiri bu ñu nekkoon ñoom xaarim nekkoon mu nekkoon ba nekk champion topp na ci ginnaaw ay magam ba muy ñëw école de lutte de école de waa école ikiri waalo ay Lirou Diane ñoo fa nekkoon ay Doublas nekkoon ay Alamda ñoo nekkoon ay la de Guiers mais ñun dañoo topp ci ñoom di topp ci ñoom di topp ci ñoom ba xëy yàlla def ñu lu ñuy def mm-hmm. nga dem Fass noonu mm-hmm. Gris Bordeaux noonu la def ci Moustapha Guèye mm-hmm. ba am li mu war a am nga dem tey euh, bul faale Eumeu Sène noonu la def tey suñu papa yëpp noonu lañ def